barkeb xutba bi dégg yi rek ci suñu nopp doy nanu daja des nag moom mën des wax lu ñu waxutoon dëgg la xanaa fàttali ak soññi rek loolu it mën naa bañ a gudd loolu di moo rek ñu gën a góorgóorlu bu baax ci suñu diine góorgóorlu ci sàmmoonteeg moom bu baax a baax suñu kem kàttan góorgóorlu itam sàmmonteeg sunu taalibe li cay sunu kem kàttan góorgóorlu itam lu baax sunu diggante ñun jaam ñi góorgóorlu lu baax ci sunu jëflante sunu jëflante yépp ñu ko sonne góorgóorlu ci bu baax ci ni mu gën a rafete jëfe makaarimul axlaaq yi maanaam di jëfe jikko yu kon gannaaw itam safaan yi kon diggante boobu rek góorgóorlu bu baax a baax sax ci sant sunu borom moom mi nu booleeg sëriñ bi sax ci sant sëriñ bi moom muy suñu léppi tey ëllëg eh, dëkk sax dakk ci wéetal suñu borom lépp sax dakk ci doyloos sëriñ bi suñu digganteek moom ci lépp sax dakk nag ci góor góorgóorlu bu baax nag sàmmante suñu diine rek sàmmante suñu taalibe loolu rek mooy li ci am solo ñu ngi sant bu baax a baax bokk yi sant kilifa yi sant taaliba yépp sant bokk jullit yi ci taxawaay bi nga xam ne waxtu bu nekk ña nga ca taxaw tem ci diine ji taxaw temm ci taalibe gi ndax taalibe gi diine ak taalibe rek moo koy li moo koy rafetal ndax taa taalibe du dara lu lépp looy def di ko def te yàlla tax mu bëgg mu mu mu jëf lu baax di daw lu bon te yàlla tax di wattandi bu baax safaan ba ci lépp luy xeet tere ak lépp loo xam ne ñe rafetul lu góorgóorlu ci bu baax a baax di ku sàmmanteeg moom loolu rek mooy li ci am solo kon fàttali rek la ak soññe dañ góorgóorlu bu baax ci li mu feen yi muy jàmm yàlla rek la ca dolli ko mooy liggéey sëriñ bi te yàlla tax dañ ci góorgóorlu bu baax loolu moo nu jikk moom ci lañ mooy suñu njariñe tey ëllëg mooy su biir su njëriñal biir bitti ci su suñu mucc mucc nekk muccu tey nekk ci la muccu ëllëg nekk kon góor góorlu bu baax a baax a baax suñu yitte jépp ñu ko def ci jublu yàlla ndax loolu lépp mu ngi jublu yàlla ne suñu yitte jépp ne yàlla rek alhamdulilahi rabbil alamina sant bu baax ci tawfeex jure yi nga xam ne suñu borom defal na may def may na ko sëriñ bi sëriñ bi moom yittewoo sëriñ bi mu yittewoo yàlla rek jublu sëriñ bi mu jublu yàlla rek ndax bàyyiwul dara ci digg ma borom kon lépp lu mën a doon noo eh, ngi ñaan bu baax a baax gannaaw ba nu santee sunu borom noo ko ñaan bu baax a baax a baax mu gën a fab sunuy nas gën na koo dénkal sëriñ Tuubaa sëriñ bi womatal na boppam lu ci def lépp ne kon ak cant rek la war a doon ak sax dàkk ci góorgóorlu suñu kem kàttan ñi ngi sant ñépp ñi ngi sant bokk yi kilifa yi bokk yi taalibe yépp bokk jullit yépp kilifa yi yépp ñoom sant ñépp di gërëm ñépp ndax taxawaay bi benn rek la ko bokk muy nekkal fii nekkal nekk nekk nekkal fi yàlla ñu ci lim nu fi indee sax dàkk ci jaamu yàlla rek ak ak ak ak liggéey sëriñ bi ci lépp suñu lépp baax bu baax te yàlla tax loolu rek na nekk ci diggante boobu rek la ci lépp nag moom am ci rafet njot am ci xel mu dal gën cee gën am yaakaar loolu rek la jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax a baax. di am mbégte bu baax a baax ci taxawaay yi xam nañ ni taxawaay yitte ji yépp mooy sëriñ bi yittewoo sëriñ bi nag mooy yittewoo yàlla rek kon jërë ngeen jëf fa tabaarakallah. ngeen taal suñu ñaan.